mbokki julli yi góor jigéen mag ak ndaw képp koo xam ne yaa ngi ñuy seetaan ci fayda tijaaniya point com wala nga ñu ciy déglu ñu ngi lay wàccee sa wàcc waaye di leen siyaare di leen sant di leen gërëm ci bugg gi ngeen bugg yàlla yàlla mu leen tàggatal seen roox ba ngeen jublu ci moom jublu ngeen ci yalla ci melokanam jublu ngeen ci yalla ci turam jublu ci yàlla fas yéene jëriñu khalifa xalifa sénéro ya ñu ngi leen ay di leen nuy di leen sen waccu way nak di leen ñaanal tawfiq sen liggey bu metti sen hen bu dis bi ñu waxtaan ñu ngi won ci bismillahil latif def nañ ci ay émission façon ko yéen a topp ci primi primi xurt euh, bi lim ci wax ak keneen lim ci wax kon nag tey dama la ci jëlal ci chiffre yi ma la wax rek quatre bu jëlal quatre nga minti ko ci latif mu jox la cinq cent euh, seize maanaam juróomi téeméer ak fukk ak benn boo demoon ci sóoratu Yuusuf da nga fa fekk baat bu ñuy wax sayaara sayaara mooy oto xam naa tey mag ñi buñ daan liggéey buñ soxlaan waruwaay latif ñu ngi koy liggéey cinq cent seize waruwaay la dafa rib mbaam waruwaay la fas waruwaay la gëlëm waruwaay la oto waruwaay la yow daañ yaa xam sa quwa tabiiya wala sa quwa kulliya fan la toll ci tur wi ci tur wi bu boobaa nag su fekkee yàlla dimbale na ne la ba nga liggéey Ismulaay Latif cinq cent seize ñaan ci waruwaay bul fi bàyyi ko nag naan waa ji dafay euh, woote ma ne loolu laa fi fekk mag ngi di doxal xanaa kay da nga koo xamoon wala nga ñàkk koo xam te xanaa waruwaay nag dagan na nag ndax <clears throat> dafay dimbal doomu aadama waruwaay dafay dimbale doomu aadama moo tax yàlla tudd na ko ci xaj tudd na ko fune yalla yàlla na nit ñi nanu qul siru fil ard ma za kan ta dox bobu nak amna na ci bo xamne ni mënu ko def ak tank xamna nak auto bobu soko duggal ci dugal ci dana jafe nga jaarale ko ci turu ismulaay latif waaye bu ko boo ci ya rek dana yomb yalla ndax sayaratun sin gu wowla ñetti yaaga di fukk alif ba di benn xëga raaga di ñaari téeméer xëga di juróom booleen boole muy cinq cent seize loolu lañ bo may tey mbokki jullit yi e waruwaay nag bokk na ja dafa yaatu de waruwaay waaw wa maa min daabatin nag fil ard illa ala llahi te loolu yëpp ci waruwaay la waruwaay eh, daan bugguñ ci saraa saraa ndax yow mi may dellu yaa ma ëpp xel man naam yaa ma gën a leer xel man naam yaa ma gën a dox man naam li la yàlla jox joxun ma ko kon nag bu ma la waxee waruwaay na mag ñi nii lañ ci daan te waruwaay ah waruwaay nag ku ko wax rek wax wéttaluwaay comme ñoom dañ daan soxlay xar soxlay nag soxlay boy lépp lu ñeenti tànk rek dañ ko daan ñaane ci ismullahi latif ak yeneen tur yi nga xam ne xam nañ ci yeneen waaye yoo xam ne yi eh, moom du ci latif lañ ne moo tax tey ñuy wax ci latif ñu ngi ziyaare ñëpp di nuyu ñëpp di ñaanal yàlla tawfiix di ñaanal xale yi fayda tijaani point comme yàlla gën leen a taxaw gën leen a dimbale